auzu billahi min asheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wa inni uizuha bika wa zurriyataha min asheytaani irrajim rabbi auzu bika min hamashaati shayatin wa auzu bika rabbi an yaxduruun rabbi israx li sadri wa yassir li amri waxlul xuqdatam min lisaani yafqahu xawli mbokki internet yi mbokki salaam 7 TV fu waay mën ne ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a sell muy asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu dellu nañ rek ci seen jotaay bi ñu baaxoo ànd ak yéen saa su ne mu di nuuru nujuum mu di xam-xamu biddiw wàllu astrologie ñu leen ci leeralal biddiw yi horoscope yi Euh, tabia yi couleur yi sarax yi yëpp incha allah ñi leen koy leeralal su fekkente ne gan nga ci scène bi rek man nga dugg ci biir nga dem playlist eh, nga dem ci vidéo yi ñu def ci wàllu astrologie wala yi ñu def ci wàllu horoscope loo ci bëgg a xam rek incha allahu rabbi di nga ko xam foofu soo bëggee xam sa horoscope it mën nga dem playlist nga dem ci vidéo yi ñu def ci horoscope incha allah def nañ ci douze horoscope yëpp def nañ ko mi ngi foofu incha allah kon dikkoon nañ ci ñetti horoscope yi eh, seeni melo tey ñu war a dikk ci bélier muy alxamal ak tooro muy assawru eh, képp koo xam ne sa horoscope bélier la foo ko fekk su jàppee du gaaw bàyyi maanaam nit lay doon koo xam ne bu jàppee du gaaw a bàyyi waaye bu bàyyee nag pare na ci waaw maanaam buy téye buy jàpp dafay jàpp fukki loxo ak juróom ni olof naan fukki loxo ak juróom dafay jàpp bu baax waaye bis buy ba nag yoo ko defee lu tax bàyyi bam lay bàyyi dafay ji génn ba set wi ci daal di lay bàyyi hmm, kooku foo ko fekk bélier njikko jooju daf def koy amee. waaye ku yeewu lay doon nit maanaam nit ku yeew lay nekk lu cëpp foo ko fekk waaye nit ku sob lay nekk it nit ku sob nit ku texet it lay nekk ba mbir dana ko amal njariñ sax mu texet ba du ko def kuy jiixi jaaxa ci ay mbirit lu ci ëpp maanaam mën na nekk ci <coughs> mbir war cee dugg waaye di jiixi jaaxa di am xel ñaar ba loola raw ko ay mbiramit it du gaaw dafay yeex lu ci ëpp ay mbiram dafay yeex feebaram lu ci ëpp feebaru biir lay doon daal di wàcc di tàmbalee ci dënn bi daal di wàcc lu ci ëpp mooy nekk feebaram melo yooyu mooy lenn ci melaw bélier bélier mhm. donte indiwuñ wuñ melaw bélier lépp nag des na lu bari waaye ab tënk la rek incha allah rabbi ndax nit ku ci ne am na jeexital buy am ci moom ci wàllu biddiw yi astre yi ak yeneen jeexital danaa ci dikk ci turu yàlla yi dafay am jeexital ci dundu nit ki ndax nit ku ci ne am na ci turu ko suñu borom sàkk ci baatin te bu ganesee àddina faawu meloo woowu lay amee moo tax nag da nga gis nit di sonn tuuti maanaam di liggéey liggéey boo xam ne sonn ci daal yor alal ju bari nga gis nit koo xam ne moo ko gën a sonn foofu gën koo métti la liggéey am tuuti loolu nag ci sirru bi suñ borom di binde doomu aadama yi dafa am jeexital ci dundu nit ki kon biddiw yi dana am jeexital ci nit ki horoscope yi dana am jeexital waaye am na leneen luy am jeexital ci dunduk nit ki lu bokkul ak yooyu kon ñu bàyyi ko xel incha allah te xam ne li ab tënk la woon rek ci bélier bélier nag saraxam mburu baax na ci moom nay sarxe mburu ak sondeel mën na di ko sarxe waaye bisub talaata la koy sarxe sondeel biit bu mënee nekk bu xonq moo gën su mënta am sondeel bu xonq mu wut sondeel bu weex di ko sarxe waaye kum ko sarax baax na incha allah ñu dikk ci ñi nga xam ne seen horoscope tooro la tooro foo ko fekk feebaram du gaaw wér feebaram du gaaw wér da koy weyaale da koy weyaale lu ci ëpp li wolof naan feebaru weyaale lay nekk maanaam maladie chronique lu ci ëpp daf koy yomb waaw néew ma nag képp ku nekk belier rek lii daf lay dal par la force déedéet lii xam-xam la rek boo xam ne boroom xam-xam yi ñu ci sukkandiku muy lu wér ñi di ko jàllale incha allah feebaram du gaaw wér lu ci ëpp maladie chronique lay doon mhm. waaye dafay gaaw a fàtte lu ci ëpp nit ku gaaw a fàtte lay doon nit ku dëgër bopp yit lay nekk <laughs> nit ku dëgër bopp lay nekk waaye nag lu ci ëpp ak njub moo ko war maanaam jaamu yàlla moo ko war ndax léeg-léeg nga gis maanaam na nekk nit kuy fonk diineem daal bu koy def rek ay mbiram da ngay gis ne dafay daal di eh, sopp ko bu baax te problème mën na koo jafe donte problème ta ñàkk ci àddina ndax nit ñi moom ñaar lañ rek am na ci koo xam ne mën na di mooy suñ borom boo dee ab julit maanaam ngay mooy saa gën a waxtu julli yi doo def dara sa liggéey di gën a dox eh, suñ borom mel ni ko lay jaay am ci koo xam ne nag safaan ba maanaam saa yu sàgganee diineem rek nekk ci ay jafe-jafe borom tóoroo ci la bokk. Euh, tóoroo moom lu baax rek ko jik buy def lu bon rek da ngay gis ne euh, ay jafe-jafe daf koy yomb waaye ab tab lay doon nag foo ko fekk nit ku bëgg lu rafet lay nekk it maanaam mën na dem ci marché bi yor xaalis bu bari jënd ko benn affaire bu rafet rek boo xam ne dafay cher waaye dafay rafet nit ku bëgg lu rafet lay doonit it incha allah rabbi loolu mooy melew tóoroo lenn ci melew tóoroo donte waxoon naa ne horoscope bu nekk dañ ciy tënk rek saraxam it ceeb baax na gerte baax na saraxam la waaye bis bi koy joxe mooy bisub àjjuma te képp kum ko joxit baax na loolu mooy lenn ci melow tóoroo incha allah dina dikk ci yeneen horoscope yi ba mu jeex tàkk bu jeexee ni dikkal leen ci fusulul arbaa muy ashita arrabi ashayf alxarif mu di hiver printemps été automne leeral leen lan moo tax euh, février di dee vingt huit ak yu baree baree bare incha allah dañ ko leeralal ci biir seen bi incha allah fan yi dinañ leen dikkal it ci firi gént lépp lu waay gént rek bëgg nañ incha allah boo duggee ci seen bi fekk ko fa incha allahu rabbi ndax képp koo xam ne seetaan nga vidéo ba mu jeex te mënoo ko comprendre soo ma woowee it li ma lay wax doo ko mën a comprendre parce que vidéo yi moo gën a leer li ma lay wax. ndax numéro yi dañ koy joxe pour ñi ñu soxla rek ci wàllu ñaan ndax ñun marabu tradipraticien lañ boo gisee numéro yi sax loolu lañ ci bind bu marabu tradipraticien dañuy yëngu ci wàllu ñaan di yëngu ci wàllu faj sungu fag ren ak gàncax kon looloo tax ñuy joxe numéro yi rek képp kuñ ci soxla ci côté boobu ci wàllu ñaan man nga woote waaye képp koo xam ne nag dangaa jël suñu numéro woo ñu ci suuf bëgg ñu xool la sa horoscope su boobaa da ngay fay ñu bàyyi waaye bu dee lu jëm ci wàllu astrologie ak wàllu ilmu nujum man nga yem ci vidéo yi rek incha allah ndax booñ ci woowee bëgg lañ leeraloon ci youtube bi ñu koy leeralaatit it jot googu duñ ko am te képp koo xam ne vidéo bi leerul ci yow maanaam mënoo koo seetaan ba comprendre wallaay buñ la waxee it mënoo comprendre ndax vidéo moo gën a complet audio ñu bàyyi ko xel di ñaan jàmm ak salaam ak xéewal ak sutura yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf